yàlla rek ndax li tax ñu sant suñu borom subhanahu wa taala mooy ni ko sama mag ju baax ji waxee sëñ Cheikh Coro ñu dend ak sunu waajur sëñ Abdoulahat Mbakke moom sëñ moom Cheikh Amadou Fadal dend ak sunu mbokki waa sëñ Abdou Rahman Lo yi nga xam ne ñoom lañ toogal ñun ñëpp kon jataay bi day firndeel rek li sëñ Tuubaa doon wax ci yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa zilta dayfan zairan abada mukarraman bi qirat taati wa sadadi muazama inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rachadi damay wax ñetti bay yooyu rek suñ mu taxaa dañoo dimbali ñu am ko ci jataay bi ndax ñetti bay yooyu nekk ci kaw xaside googu suñ tubaa da ci kañ weeru tedd wu màgg wi ne ko gan nga goo xam ne eh, gan ku màgg nga gan ku tedd nga gan goo xam ne yàlla moo ko màggal yàlla moo ko taral ndax koor suñu borom subhanahu wa daa bañ ba ne koor sama yëf la doomu aadama mu ne jëfam yaa ko moom waaye woor moom koor sama yëf la maa koy fayal sama bopp kon lu màgg lu rëy ci yàlla suma wa taala Sëñ Tuubaa nag wax nañu ni ñuy def ba am xéewal googu ci nekk mu ne weeru daa weer woo xam ne liñ koy tere liñ koy terale di ko bernde mooy bi xiraat taati wa sadadi mooy ci topp yàlla subhanahu wa taala ak def def yu jub mbokk yi bu ñu doon laaj jataay bi lan moo ko gën a jekk lan moo ko gën a màgg lan moo ko gën a yelloog weeru koor ndax waxtu wi ñu koy def julli lañ takkusaan ba pare nit ñaa ngi jàng alxuraan karim bu ñu paree nag jël xasida yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne da ci kañ yontu sallallahu alayhi di ci julli ay salaatu ala di tagg suñu borom subhanahu wa la waaye di ci ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala te loolu mooy taat yi ñu daje nag ci bërëb boo xam ne ndax doomu lu ñuy def lu def ko mbooloo moo gën waaw yàlla li bëggoon mooy lépp lu doomu aadama def jaamam yi di ko def rawatina julli ñu defe ko par mbooloo ñu daje fii ci am mbooloo nag daje ci bërëb boo xam bërëb bu sell la di berndeel weeru koor yi bi a taati wa sadadi waaye gis nga sëñ Tuubaa lañ muaddama inda rabbi la sharika lahu weer yi daa màgg ci yàlla mi nga xam kenn du wa inda ahli tuqaa waaye màgg tamit ci ñi yàlla sëñ Muntaxaa kan moo ko jiitu ci ragal yàlla subhaanahu wa taala kan moo ko jiitu ci ragal yàlla subhaanahu wa taala moo tax sëñ Muntaxaa toog dajale njaboot gi dajale mbokk yi dajale jullit ñi ñuy màggal ñuy berndeel weeru koor gi topp yàlla suma subhaanahu wa taala wa ahlul ilmi sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye ambassadeur mi ngi toog nekk ambassadeur di doom Cheikh Mouhamed Fadal di borom xam-xam kon wi ngi ci jataay bi toog wa rachat ak ñu ni xam ne dañuy jëm sàkk ak njub ñëpp dañuy ñëw fii ngir sàkk ak njub kon dafa mel ne ndabi taraange yi sëñ Suba waxoon ne moom la ñuy terale weeru koor Cheikh Mountakha da ko defar ba mu jekk teg ko nañ ñëw leen ñu ànd ak yéen terale ko weeru koor gi kon daal dañ ñaan yàlla Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg lool te tey yàgg koo teewe at yu bare bare bare ba naa lim naanal liggéeyal euh, Serigne Touba yàlla su ma may ko ko ca anam yi gën a baax gën a mi gën a jekk wasalaamaaleykum wa rahmatulah